بالكواكب يا هيم يدا كل الأسامير صفات تابعات من سيفة ساتوا أفعال يدا أتوك بشمسها أمان باسقات وبالكواكب هيم يدا اسمع ملك عبير حاسب ولا بزال بلا سسات ميزا مراد يدا أدعوك بسمسيا فما نباسم الحبيب الكبير مرتجيا جزيل جودك يا جواد يا الله أدعوك بشمسها زمان باسقة وبالكواكب يا هيم يدا وجهت قلبي إليك رابعا أذهب وباسط الجيادة يا ربي يدا أدعوك به شمسي رمان باسقة وبالكواكب يا هيم يدا barakaatu mu ne ñu ngi nuyu gan ñi ak dëkk yi ñu ngi nuyu góor jigéen ak mboolem ñu fi teew ak waa dëkk bi ak tund wi yépp mu ne mu ngi leen di fàttali xam naa fàttewu leen ko sax ndax bis bi mooy bis bu gën a màgg ci bis yi mooy bis bu yentu yàlla Muhammad ganee àdduna ñu sant bu baax. mu ne ñu ngi sant yàlla ci loolu ba mu ñu mayee wér ak tal ba ñu fekkee loolu. gërëm mboolem mbooloo mi mu ne ñu ngi gërëm mbooloo mi fi teew yépp. kilifa yi kilifa yi. Eh, yow xam nga mu ne man xam naa leen kilifa yi dëkk bi notable yi ñëpp a ngi toog ci ron baas bi lu toll boroom dëkk ak ay ndawam ñoom ñëpp ñu ngi toog ci ron baas bi. Eh, gan ñi jógee Dakar ñu mel ni suñu baay suñu mag alaaji ibrahima Dramé ak njabootam ak Babacar Gueye mii nekkoon ci taabul ji di jàng ak sëriñ Mamoul Dramé ak ñëpp ñoo xam ne jóge nañ Dakar ñëw fekk ci lii ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla yal ñu teg ko teewe at yu bëree bëree bari te ànd ak wér ak wérle mu ne ñu ngi sant daal di gërëm ñoom seen bopp mu ne yéen ñu jógee ba Ndakaaru ñëw fii di Sénégal set ñu ngi leen di massawu seen i coono. te di leen ñaanal. te yàlla aar leen ngeen ba ngeen delluwaat fi ngeen jógee woon ci jàmm. te bu ngeen demee ngeen jëlee ak yokkute. ci saahir ak ci baatin. mu ne lépp lu ngeen yéene. yàlla na si yàlla def ndimbal. ci barke alxuraanul karim. kontaante du weesu kontaante mu ne kontaan du weesu kontaante. yëg gi ngeen ñu yëg. yëg ba mu jaral leen ngeen ba jaral leen daaw ngeen taal seen oto ñëw fii ren tamit ngeen defaat loolu. ñu ngi leen di sant. ñu ngi leen di sant bu baax. te di leen ñaanal yàlla yokk leen. ci saahir ak ci baatin ak yéen ak seeni kilifa yëpp. mu ne bi ngeen delloo ba Ndakaaru. ngeen wax seen kilifa yu leen yónni na leen gërëm nañ sant nañ ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla yokk leen amin ci saahir ak ci baatin mu ne léegi ci topp daal mooy kilifa yi nga xam ne ñoo fi toog mal imaamul akbar ak alaaji ibrahima njaay mii ak suñu mbokk yu jógee ba sa mbaatu ba simon jéen ñu ngi leen di ak waa booli musa ndaw ak fu nit jógee ci saalum gis nañ leen suñu bët gis nañ leen suñu xool daj nañ leen ñu ngi leen di tatagal di ñaan lépp lu luñ fi taataane ñu bokk ko ñun ñëpp alhamdulilah waaw loolu daal la si doon yëkkati ay kàddu mu ne lu seet lu si def ñu seet nu mu gën a rafetee ñu def ko julli ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama ci bés bii nga xam ne moo gën ci bés yi ndax rasulullahi moo gën ci nit ñi ki gën ci nit ñi nag su juddoo ci bés bés booba moo gën ci bés yi ñu ngi leen di ndokkeel ci loolu di ndokkeel sëñ Ibrahima Dramé mii nga xam ne mooy xalifa ci Dramé moom la fi yàlla teg muy kilifa gu lewet gu baax bi ko wàccee wàccu waayam di ko ñaanal yàlla fan ak wér may ko fan bu gudd bu ànd ak wér gi yaram mu yàgg ci kanam njaboot gi bi jaahi rasulullahi ndax mag la mu lewet mu baax mu am yëg-yëg mu am yërmande yor na daal jikkoy yonentu yàlla muhammad solo jikko yonent yàlla muhammad mooy loo yor mun nga koo jox nit ñi te nit ñi luñ yor nga bàyyee leen ko kon nag kooku su melee noonu dañ koy ñaanal fanu gudd ak wér-gu-yaram di nuyu it rakkam al imam Mouhamadou Moustapha waaye su ma jógee foofu yit danaa nuyu sama mag al imam Mouhamed Dramé mi nga xam ne mooy jiite waxtu yu juróom waaye nuyu rakkam buñ tofal ci moom mooy imam Mouhamadul Bachir Dramé fa tabaar fakkallaahu ku bokk ci famille bi rek yërëm nga ko ci fan yi ci ay daw dawam ay yitteem ci lënkaloo gi mu lënkaloo ak Mamadou Lamine Dramé pour ñu fexe rek ba taxawal baas bii ndax sagal nañ famille Dramé sagal nañu waa Kutaal ndax tey tey suñ ñëwoon dugg ci tànt bi tànt amul fi lekk yi luñ neex neex su tànt amul gàmmu du am te ku nekk xam na ne baas bi li ko taxawal ak fauteuil yi li ko fi indi ak làmp yi li ko fi indi ñun ñu ci daan daw bi ñu amee fukki at ak juróom ànd kook sëñ Ibrahima ak sëñ Mouhamed Dramé mais xam nañ ne lii ku ko taxawal jàmbaar nga kon moo tax sëñ Bachir ñu ngi lay ndokkeel ci jonjoo gi nga jonjoo ak Mamadou lamin ci réaliser loolu bu ko nit ñi xamul it ñun ñu dëkk ci famille bi xam nañ ne amul kenn koo xam ne sa dërëm wala sa temps dem na ci du dul sa dërëm yow Mouhamadou lamin wala taaw Bachiru Dramé ak yenn xale yu ndaw yum ko àndal loolu nag Ibrahima du ko wax ndax kenn du wax lépp keneen du ko wax waaye man mi nekk ci seen biir xam naa ne famille bi yëpp amal nañ leen ngërmande waaye kutaal yëpp amal nañ leen ngërmande rasulullahi amal na leen ngërmande te su ma waxee loolu ku ko dégg da nga sant gërëm ñu ngi ndokkeel délégation bi Serigne Mohamed Dramé àndal si suba ba léegi su toogee wéetul pour préparer ñëw ci tànt bi ànd na kook sëriñ Mamour Dramé nga xam ne ku ko xam-xam ko ci kër gi ànd na ko alxaaji Jóob ku ko xam ko ci kër gi ànd na ko ak sëriñ Ablaye Dramé mais dëkk Kaolack yor daara di xariti Mamadou Lamine Dramé di xariti waa kër gi yépp sëñ Racine Mële imaam la dakaar yor daara moom it mu ngi bokk ci délégation bi bi ñu ñëw ñu ngi ànd ak moom suñ génnee foofu ak Ibrahima Ndiaye ak Babacar Dramé ñii ñëpp dëppi fan yi ba bajaan mi jóge fii ba Kër Mandiaye fu nekk nit jógee na fa pour ñëw bokk ak ñun feete bés bii nga xam ne mooy basu rasulullah sallallahu kon délégation boobu fu ñu teew rek gàmmu am na gannaaw bu ñu leen santee nag nee na bés bii lan lañ ko doon def alxaaji moo Dramé bañ ko ko joxee ba bés yàlla tey bii su bés bi jotee mu woon nit ñi nañ tagg yàlla tagg rasulullahi jaare ko ci téere bi nga xam ne moom moom Mawlaana Seex Seydi Alhaaji Omar Ndaw wëy muy Luxlu'u Maknuun boobu ba léegi mag ñi ko fekkee woon ñëpp béjjaaw nañ bay bëgg a màggat kon moo lay wan gàmmu gi lu yàgg a yàgg la ba mu fi bàyyee rakkam doxal na ko 30 ans muy màgg di màgg ba ñëw ci loxo sëñ Ibrahima Dramé waaye ba mu yegsee yàqul dara dafa gën a rafetal yaatal na li alquran ne tafasaxoo fil majlisi yafsahi laahu mu ne nag man nee nañ dinaa waxtaan ci rasulullah ci guddi gi li ma gën a xam ne point bi maa njëkk waxtaanee mooy ak actualité mooy doomu aadama yi ñu yor jikkoy yonentu yàlla muhammad lan mooy jikkoy yonentu yàlla muhammad min makaarimil axlaax an tax foo man salamaka wa tuxti man xaramaka wa tasilu man xataxaka yëg ngeen ne problème yëpp ci Sénégal jikko yi suñu baaxee lépp baax rasulullahi bi mu ñëwee dañ ne yónni ma ngir alal yónni ma ngir dara way dañ maa yónni li uttami ma makaarimal axlaax kon ku ma laaj ban siise ngay gàmmoo me ne dinaa jaar wax naka la ñuy def ba jikko yu rafet beneen bi ci tes rasulullahi bi mu ñëwee àddina la xéewal am mu def lan deuxième point bi yàlla yónni na ko muy risaala troisième poin bi mooy fexe na ma dajale mbooloo yëpp ñu nekk benn ci siise boobu laa bëgg waxtaan maa ngi ndokkeelaat seen bii nga xam ne ñëw nañ pour xam lan moo xew si kutaal génnee ko àddina yëpp jot si di ñaan yàlla fi ngeen bëgg a yegg yal ngeen fa yegg bi jaahi rasulullahi kon ñu jox imaam Mouhamadou Moustapha Dramé wasalaamualeykum wa rahmatullah ñoom ñu ngi ci muy góor ñi muy jigéen ñi jumaa ji ñoo koy bale ñoo koy setal ñoo koy bay su fekkee am nañ tànt tànt bu mu mën a doon ndem diina la waa dëkk bi ñu ngi ci waa koñ bi surtout ñu ngi ci xale yu góor yi xale yu jigéen yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla am na beneen groupe boo xam ne ñu ngi koy wax fàttaliku démb groupe boobu tamit dugal nañ seen loxo ci bis bi ñu am pas-pas lañ daaw def nañ loolu ren def nañ loolu groupe boobu itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ngi leen di wooyee fàttaliku démb ñu am solo lañ ci taxawaay bi su loolu paasee waa Koutal yëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi njëkkee ci borom dëkk ndax borom dëkk dégg naa ne fii ñu toog nii soo gisee ñu mën fii toog ñun ñoo xam nañ ne géej moo fi nekkoon taataa bu mag bu xam ne kenn mënu fee jaar waaye ba mu yëgee ne fii la ñuy gàmmoo la dem fay camion suuf ñu sotti ko fii ba nit ñi mën fee toog tey kon borom dëkk tamit wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm ñu ngi gërëm waa dëkk bi yëpp di leen ñaanal jàmm ak tawféex wasalaamualeykum